balay ñëw ñëw tuuti rek ci lu ñuy càmbar ak li nga xam ne ni euh, def nañ ci ay gëstu ak li nga xam ne voilà mooy euh, sénégalais yi euh, dañuy ñaxtu bu baax a baax a baax maanaam hôpital yi nga xam ne nii dañ fay dem dafa doj dafa daj ay coono yu métti ci wàllu ay ordonnance ak ya ci aju wala loolu nag bëgg nañ bu baax a baax régime bii fi nekk nii taxaw ci loolu bu baax ndax man chaque jour damay wax ni wala mag ñu bari dañuy wax ni même fi mu toll nii képp koo xam ne daal bëgg ngaa gagné bataille bi ci maanaam euh, sénégalais yi waaj fexeel ba maanaam hôpital bu ñu fa demee seen lépp yomb maanaam daal ñu yombalal leen seen hôpital euh, euh, bépp médecin bu ñu fa mën a yóbbu bu nekk voilà parce que loolu dina leen euh, dimbali bu baax a baax pour ñu mën fee yàgg bu baax a baax a baax loolu nag moom waxuñu ko sénégalais yi ñoo koy wax ak tamit lu jëm ci wàllu euh, dund gi lu mu gën a wàññi parce que bari na ci ñoo xam ne boo demee ci yi dañuy wax ni non wàññi bi moom dañ koy dañ koy wax nii rek waaye wàññi bi am na ñoo xam ne wàññi woon waaye wala respecté woon moo tax Sénégal pour mu dem du yomb parce que euh, yu mel nii dañu ci war di taxaw bu baax a baax pour def ay superviseur pour maanaam def ay contrôle di dugg ci marché yi parce que tamit wax dëgg yàlla leen ba pare ñu wàññi deux jours trois jours ñu demaat après gisaat njëg yi di commencé waat di yéeg voilà soo laajee nit ñu naan la waaw wàññiwun wala wàññi bi du wàññi dara xam nga loolu dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax voilà ak hôpital yi ak kaso yeeg yëpp yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la gis ñett yii bu ngeen ci taxawee bu soobee yàlla bu leen neexee laa wax man ngeen a nguuru cent ans cent ans laa lay wax ni mais bu ngeen ci taxawul nag ah di raay ak di wax nii ñuy dem nii wala ñi kii ah Sénégal yi moom yaakaar naa ne wax dëgg yàlla moom kenn moomu leen moom dañuy dem ba maanaam dañ naan ah ñi daal ak ñi fi nekkoon doo nga te loolu la ñuy loolu lañ leen bañal ndax wax dëgg yàlla ñun am nañ ci yéen yaakaar bu baax man daanaka damay sonn sonn goo am ndax dañoo jàpp ne maanaam fi ñu toll nii man la àndal voilà mi ngoog kon beneen bi ci des tamit moo di voilà lu jëm ci euh, Lamine njaay mi waroon a fekkee euh, ndaje bu fële na le euh, bi nga xam ne moom lañu daje ci régime bu bees bi ndax ku nekk ku xam Lamine njaay moom wax dëgg yàlla xamoon ko ci wàllum théâtre rek yaa ci ajo yooyu noonu Lamine Ndiaye nag nekk koo xam ne dafa am position boo xam dafa leer nañ muy fi mu féete muy ñoom Ousmane Sonko mi nga xam ne ni saa su nekk ñoom lay jàppale ci lépp voilà Lamine Ndiaye nag koo dëgg yàlla macha allah voilà depuis bi nga xamee ne mi ngi nekk ci nga xam xam ne ni moom lañ nga xamee woon ba jommi yàlla tey ji musul wax loo xam ne wax dëgg yàlla dafay dépassé daal luy avancé réewam daal ci lay wax saa su nekk voilà kon daal Lamine a ngi noonu dafa amoon benn euh, sog bu ndaw rek bu amoon ci voilà euh, Euh, la ñuy wax ci euh, côté euh, autoroute bi choc bu ndaw rek wala xam naa ni taxu koo kii noonu waaye en tout cas daal lu ci mën am rek incha allah rabbi danañ leen ci danañ leen ko toppal bu baax a baax a baax Lamine Ndiaye nag xam ngeen ko bu baax a baax moom dafa am position bu baax a baax ci ñii fi nekk tey voilà man sax damay wax ni saa su nekk gis nga maanaam position yi yëpp loolu du dara maanaam Sénégal mooy lépp xam nga boo boo boo bëggee Sénégal voilà faaw nga bëgg ñi nga xam ne nii wax dëgg yàlla dañ leen a fal parce que ñi leen fal maanaam tey euh, ñu bees lan ñi leen fal Sénégalais yi la kan daanaka mën naa ne kon boo leen bëgg Sénégal ngay bëgg voilà en tout cas daal euh, ngi noonu li nag moo di Sénégalais yi daal saa su nekk bu ñuy ñaxtu voilà comme ñun moom dañuy dugg ci marché yi di dem ci euh, ban public yi voilà di dem ci opital yi di di gëstu voilà xam nga di def suñuy renseignement xam nga wala mu nekk loo xam ne loolu moo ñu war bari na ci ay nit yoo xam boo leen déglu parce que da ngay dem ci hôpital wala nga toog ci buntu hôpital yi da ngay gis ay cas yoo xam ni wallahi la doo fa bëgg a sax nekk parce que am na ñoo xam duñ nangoo wax waaye am na yoo xam dañ la koy wax nga yeggee ko ndax dañu am coono boo xam ne ak dëkk bi ak metti gi mu metti voilà nga am coono ñëw hôpital war a régler say problème nga ñëw hôpital ñu gën a laa teg ay problème loolu nekk na loo xam ne ni wax dëgg yàlla Sénégal yi chaque jour saa su nekk euh, ñu ngi bëgg ku leen koy euh, jàllaleel saa su nekk kan euh, nanu taxaw ci loolu bu baax a baax a baax gis nga fi mu toll nii wax ji li muy bari bari boo demee ci réewu développement yi seen hôpital yi lañ defar ak seen